assalamu alaikum mbokku sénégalais yeeg mbokku gambien yu nekk fii ci Italie yéen ñiy déglu rajo defaral suñu bopp mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax le 22 mai 2020 fii ci Genova ak ci Italie yëpp maa ngi nuyu suñ mbokk Genova yu nekk fii ci Genova yëpp surtout nag euh, ci via bi ñuy wax via près te mbokk yu bari eh, nekk fi gis naa fi tey benn fayeen mu yore mbuusu mburóom ak mbuusu ndugam di dem ca kër ga ba noppi nag ne ne def may ñaawal wax dëgg yàlla kooku daanu na muy Abdou Faye ñu ngi koy nuyu ñu ngi nuyu tamit suñ xarit yépp yi nekk fii ci Geneva particulièrement eh, sëñ Amadou Fall ak seen Amath Dieng wax dëgg yàlla ñu dalal ma di liggéey bu ñuy liggéey fii ci Euh, bureau bi nek via numéro 88 mu nek wax deug syndicat bi ñu syndicat autonome des travailleurs africains euh, dans le monde ñu ngi nek ci liguey bi rek euh, mbokk yi di leen wax place pour les sénégalais africains gambiens dinañ ci mën di ci laxar ci yoon mbedd mi nag xat na ku xam vie après wax dëgg yàlla mbedd mu xat la kon nag ñuy wax ne nit ñi rek dajaloo bi ci mbedd mu xat te suñ mbokk tubaab yi dëkk ci kaw <laughs> di dëkk ci wet dina nekk loo xam ne coono la te nag wax dëgg yàlla defaral suñu bopp la ñu wax ndaxte sala bi syndicat bi mu ngi juddoo ci benn groupe whatsapp buñ taxawaloon tuddoon ko defaral suñu bopp kon nag su loolu amee wax dëgg yàlla képp ku fi ñëw war nga au moins yëglu te nag bañ regroupement ci biti parce que xam ngeen ne fi ñu toll nii fu nit regroupé rek police municipale dañ fay ñëw di leen sonal kon nag loolu yëpp ci defaral euh, suñu bopp. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu donc di ñëw dëkk dikk ak yéen ci xibaar yi nga xam ne wax dëgg yàlla moo nekk ci mbirum lii ñuy wax euh, sanatoria régularisation 2020 xam naa ne nit ñaa ngay werante ndax yàlla lañu war a wax wala régularisation su ma yeboon ne ñaari ter yooyu wax dëgg yàlla li ñu utale bëriwul surtout nag su fekkee ne ci mbirum euh, këyit kon nag mbokk yi tey fii ci rajo defaral suñu bopp mu nekk ci vingt heures trente li nga xam ne lañ leen bëgg a indil du dara lu dul waxtaan leen ak yéen. ci loolu ñuy wax loi bi mais nag partie bi nga xam ne moo nekk preuve de présence en Italie maanaam wax dëgg yàlla lu wan luy wane ne yow yaa ngi Italie euh, pour mën bokk ci loi boobu kon nag mbokk yi bu leen sori ñu ngi ñëw. waa mbokk yi donc euh, li français di wax preuve de présence italien di ko prova de la présence. dello straniero sul territorio italiano moom lañuy ñëw bugg leen faram-fàcceel ndaxte euh, lo euh, loi bi da ko prévaroon euh, jaaxle woon nañ ci trop nag parce que bu njëkk teg loxo ñoo xam ne mosoon nañ teg loxo rek lañ wax wax dëgg yàlla mais nag gis nañ ne yaatal nañ ko léegi ba mu nekk ci ñetti pàcc di wax ne rek loi bi dafa wax ne ki ci mën a bokk mooy koo xam ne. fekkoon na la nga nekk fii ci Italie avant le 8 mars 2020 8 mars 2020 nag xam ngeen mooy lan wax presque mooy euh, tëju bi bi commencé ci Italie donc euh, mais na fait nga nekk ci 8 mars 2020 na la fekk ci ci Italie te euh, te bés te boobu ak tey fekk ne bàyyiwoo réew mi xam naa ne fi 8 mars 2020 te ñu bàyyi réew wax dëgg yàlla bëriwuñ ndaxte xam ngeen ni tukki bi sax déplacement bi sax euh, lu jafe la parce que man mii di leen wax wax dëgg yàlla pour ma jóge Milan ñëw Genova dama dem signer loolu ñuy wax euh, certification ne di auto euh, auto certification ne moom laa remplir feuille bi ministère de l'intérieur génne na ko ba wax ne ba noppi nag ma bind bind ci kaw wax ne dama dafa am liggéey bu yàkkamti boo xam ne laa war a defee Euh, ci train bi bëriwul nit train bi ma jëloon démb bëriwul nit feesul waaye nag euh, li nga xam ne moo ci nekk mooy takk sa masque yàlla def na bi ma jógee Milan ba Genova wax dëgg yàlla contrôle euh, presque amul te ba may jël train bi rek gisoon naa ab groupe de policiers taxaw ma ne leen dama bugg a dem Genova est-ce que mën naa dem ñu ne ma amul benn problème waaw loolu wax dëgg yàlla dama ko ci njàmbaas rek pour wax mbokk yi nga xam ne su fekkee ne am nga soxla su am importance. wa, su am importance am na sax ñu may posé kayit ne dama sori Milan pour mëna dem consulat pour mëna top toppatoo suma passeport dëgg yàlla passeport su nekkee loo xam ne lu am njëriñ la lu urgence fa naa ne soo signé kayit boobu euh, te balaa ngay jël train bi nga dem waxtaan ak policier ya ngay fekk ci bunt ba ñàkkul ne dinañ la mën a teg ci yoon bàyyi la tamit nga ñëw dem euh, ca consulat ba xam naa ne nag mbokk yi consulat bi ubbi na depuis démb xam naa ne dinaa ñëw ci beneen émission. ñëw am waxtaan euh, wu ma ci def mbokk yi donc lii mooy euh, rajo defaral suñu bopp loolu parenthèse buñ ubbi woon la waaye mbokk yi comme ni ma leen ko waxee euh, waxtaan wi tey ci mbirum maye kayit bi mu ngi concerné ñi nga xam ne ñoo mun a ñoo mun ci déposé ñoo ñu ci déposé mooy ala kulli alin ne la fekk ci Italie avant le 8 mars te 8 mars ba léegi. mosoo génn ci Italie euh, mbir mi comme niñ ko waxee benn critère buy wane loolu li ci njëkk mooy na fekk nga musoon teg sa loxo teg loxo nag ñun moom la ñuy wax euh, ci euh, ci <laughs> ci wolof waaye italien yi ñoom ñu ngi koy waxee impronte digitale baat technique bi wax dëgg yàlla techniquement mu ngi nekk relais bi photo datis locopichy waaw baat bi dafa xaw compliqué loolu vocabulaire bi nga ne ci technicien yi liggéey ci mbirum teg loxo noonu lañ ko waxee waaye ci ñun rek nañ wax ne rek na fekk nga loxo wax avant le 8 mars na fekk nga teg loxo loolu nag suñ koy wax wax dëgg yàlla Euh, seen xel mu ngi dem ci xale yi nga xam ne jaaroon nañ fi ci géej gi dugg ci Italie te xam ngeen ne képp kuy jaar ci géej gi dugg Italie euh, euh, d'une manière irrégulière wax dëgg yàlla fu ñu jaar Italie jël sa loxo jël say empreinte digitale mbir mi wax dëgg yàlla bi mu commencé loi bi avant ñu koy publier ñu ci bëri jaaxle woon nañ parce que nag nee nañ am na ci ñoo xam ne ñu ngi itali te musuñ teg seen loxo maanaam. kii liggéey badante eh, di làqatu kooku mën na fi nekk quatre ans cinq ans te lu mujj taseeg police te nag wax dëgg yàlla nekk na eh, su fekkee ne def na fi cinq ans ku fi def cinq ans te musuñ laa tegloo loxo mooy wax dëgg yàlla yow nit jàmm nga yow doy créer problème parce que mbedd mi moom kuñ ci fekk eh, fekk fekk ngay créer problème xam ngeen ne police li muy njëkk a def laaj la sa këyit te soo amul këyit da yóbbu kesturaa jël sa loxo parce que nag soo amul kayit mooy waroo musoo teg loxo te xam ngeen ne wax dëgg yàlla réew mi eh, ñi yore réew mi képp ku dugg ci réew mi dañoo bëgg xam yow yaay kan ak fan nga jóge loolu mbokk yi mooy wax dëgg yàlla eh, première eh, critère bi biñ ko waxee nag naroon ko yemal ci loolu rek association yi nga xam ne ñoo dajale. Euh, euh, datore di lavoro domestico yi ñi nga xam ne ñooy joxe liggéey ci kër yi dëgg yàlla am nañ mbootaay ay syndicat ak association yuy njore ñoom jooytu nañ ko parce que xeet gi euh, di di ukrainien ñu ci bëri dañuy liggéey fii ci kër yi mais kenn du leen gis et invisible lañ leen di ooye dëgg yàlla looloo tax mbokk yi ñaare rek ñu yaatal preuve bi def ko li ñuy wax Euh, boole ci li ñuy wax bi ci njëkk euh, déclaration de présence déclaration di presenza dichiarazione di presenza mbokk yi xam ngeen ne euh, moom lay bëgg di leen Italie daf étranger boo xam Italie ci 8 jours yi da nga war même soo fi pour vacances pour tourisme pour affaire ci 8 jours yi. Euh, da nga dafa obligatoire nga dem déclarer sa présence ci questura lolu année yu ba ci ginnaaw non lañ koy doxalee waye ci ñaari at yi ñetti at yooyu gouvernement Italie da ko changé ne su fekkee ne dugg nga Italie rek ak sa passeport ñu tamponné na ci lolu nga joggé nak en dehors de l'Union européenne lolu nak wax dëgg Yalla su fekkee ne tamponné nañ ci sa loxo euh, euh, ci sa passeport loolu jaratul ngay dem police di déclarer ne yaa ngi fi ndaxte loolu rek mën na servir kon preuve de présence en Italie kon nag déclaration de présence boobu mbokk yi ñi nga xam ne mosoon nañ ko def euh, kay ci auprès euh, ca questura yi ñooñu wax dëgg yàlla mën nañ ci bokk euh, loolu baax na mais ñi nga xam ne tamit defuñ ko te jaar Mapensa wala Fumichino ñu tamponné ci sa passeport kooku tamit wax dëgg yàlla euh, bokk na ci euh, waaye nag xam ngeen ne am na ñoo xam ne wàccuñ Italie euh, ñu ngi wàcc surtout nag dëkk bi ñuy faral di gën di wàcc muy muy France donc ca France la ñuy timbraare la ñuy seen passeport France nag ci Union européenne la Italie waaye nag wax dëgg yàlla bokkul ci Italie li ñuy bugg a xam mbokk yi te loolu dañuy xaar décret. décret bi leeral ko ndax ku jaar France ñu caché la ñu tamponné est-ce que tampon boobul valab na loolu tamit wax dëgg yàlla nekkagul lu leer te ñàkkul ne su décret bi ñu génnee dina leer maanaam décret bi mën naa wax ne képp ku dugg Union européenne rek cachet bi est-ce que bokk na ci képp koo xam ne nag wax dëgg su fekkee ne nag dañ ne rek Italie lañ wax wax dëgg yàlla boobu day xaw day waar su boobaa. Euh, cachet bi ñu def ci sa passeport foofu ca euh, France bokk ci mbokk yi nag heureusement am na beneen beneen euh, preuve boo xam ne bu dul empreinte digitale bu dul cachet ci sa passeport ca aéroport yi am na troisième preuve boo xam ne dugal nañ ko ci loi bi te loolu comme ni ma leen ko waxee wax dëgg yàlla <coughs> maa ngi jégalu day gën yaatal liggéey bi déclaration de présence Bobu, mbokki ak empreinte digitale ñi preuve bo organisme public attestation bo am organisme public organisme public nak suñ organisme public italien euh, Moy administration publique wala lépp administration administration suñ koy wax wax dëgg yàlla euh, mooy li nga xam ne bureau yi nga xam ne ci nguuru Italie la bokk maanaam lu mel ni ASL képp ku ci amoon lu mel ni de l'intrate lu mel ni IMS lu mel ni police lu mel ni carabinieri yi dëgg yàlla yooyu mooy organisme public yi gën a yi gën a màgg te yiñ gën a xam euh, maintenant am na ay association am na ay xale yoo xam ne euh, demuñ ci organisme public bi mais jaar nañ ci association yi dimbali immigré yi euh, est-ce que kayit bi fi ci am boobu mën nañ mën na bokk euh, comme preuve parce que ñoom ci loi bi organisme public lañ wax association am na association xam ne dañuy jàngale xale yi di leen jàngal bénévolement langue italienne est-ce que inscription yooyu ñu jox leen kayit yooyu ñu am est-ce que loolu wax dëgg yàlla ca la bokk mbokk yi donc euh, li moy euh, euh, ñetti preuve est-ce que tamit carte consulaire carte consulaire ñu bari dañuy lacc lolu est-ce que carte consulaire dina bok ci lolu ah ni loi bi waxé dé suñu waxé organisme public consulat mën nañ ko considérer comme organisme public waaye nak dañuy xaar rek lenen li nga xamné ne mooy ci amoon en 2012 amna ño xamné carte consulaire Euh, lañ joxe woon te nag euh, problème bu bëri amoon ci ay nju njaaj yu bëri amoon ci wax dëgg yàlla am na sax ñu doon dem tabaxal seen bopp ay carte consulaire di ko jaay mu indi woon problème nag ba nga xam ne ku yóbbu carte consulaire euh, kesturaay balaa ñu lay convoqué préfecture balaa ñu lay convoqué dañ doon bind consulat de Milan

ndaxte nag carte consulaire bi suñ ko bindee consulat ñàkk na sax peut-être consulat taxawaayam nekkul di boole ay doomu sénégalais euh, parce que suñ ko bindee mu gis ne këyit bi baaxul dëgg yàlla euh, consulat pour mu tontu ci parfois day yéex te consulat amul obligation di ci tontu loolu luñ gisoon la en 2012 parce que am na xale yu déposé woon Bergamo euh, yóbbu seen carte consulaire euh, préfecture de office euh, sportello unico de l'immigrazione bu préfecture de Bergamo bindoon consulat te dañ doon toog lu yàgg duñ jot réponse yu consulat te fekk consulat tontuwul ñoom wax dëgg yàlla duñ mën a continuer sa pratique loolu wax dëgg yàlla expérience moo koy xam te nag képp ku am carte consulaire soo ñàkkee pexe su dee moom rek nga yore. ah su la neexee nga présente ko waaye su yàlla defee nga am yeneen document yoo xam ne ci organisme public yu italien yi la génnee nga joxe boobu mooy li gën mbokk yi wax dëgg yàlla lii mooy euh, li nga xam ne euh, euh, mooy attestation yi nga xam ne moo jóge moom la gouvernement bi soxla pour wane ne yow yaa ngi woon ci itali pour mun a bokk ci Euh, ci euh, euh, régularisation bi pour nga mën cee bokk il faut nga joxe benn ci ñett kayit yi su yàlla defee peut-être nga am ñett yëpp ci la gëneeti <laughs> ma baamtuwaat ko bi ci njëkk mooy na fekk nga musoon def teg loxo avant le 8 mars 2020 ñaareel bi mooy na fekk tamit nga am li ñuy wax déclaration de présence from fàcce lan mooy déclaration de présence soo amul boobu tamit na fekk au moins nga am attestation walla document boo xam ne euh, mu ngi jógee ci organisme public organisme yi nag lañ wax waxuñ italiani mais dañ ne organisme publici donc bépp organisation bu mel ni ambassade bu nekk consulat nekk fii ci Italie wax dëgg yàlla dañ leen di boole ci organisme euh, publici kon nag di wax ne rek euh, présence bi la wax avant le 8 mars 2020 am na ñu bëri ñu nekk France ñu nekk Espagne maa ngi gis ñu may oo ñii tontu naa leen ñii mënuma leen tontu di laaj ma am na sax ba Luxembourg <laughs> ñu ma ci oo di ma ci laaj ndax mën nañ cee bokk ah loi bi de def ne na fekk nga nekkoon Italie avant le 8 mars 2020 te nga am lu ko firnde su fekkee ne wax dëgg yàlla empreinte digitale la kooku mom du yow yaa koy firnde questura yi ñoo koy contrôler xool ndax lu am la mais nak li di déclaration di de présence li di attestation wala document bo xamné organisme public yi ñoko joxé yow yow kat bi bëgg ñu régulariser la yow yaay indi preuve yooyu wax dëgg yàlla moytu leen mbokk yi preuve yi ñuy dóor ndaxte këyit bu nekk Italie am na ñoo xam ne dañ koy dóor surtout suñ mbokk ya nekk ca sud ba loolu wax dëgg yàlla ay dóor ay kayit fii euh, baaxoon na fi waaye nag na ngeen ci moytu parce que nag wax dëgg yàlla képp ku kuñ ci gis contrôlé gis nga ne lii nga joxe baaxul wala foo la dëgg yàlla coono dina la topp te soo wootul su la suñ ko toppee yow dootoo bokk sax ñu mën a rester Italie ba ci am kayit. kon nag mbokk yi lu ñuy wax rek tubaab un homme averti en vaut deux loolu moom dañ ne woon rek eh, eh, eh, nañ ko ci boole donc suñ mbokk yi nekk bitim réew wax dëgg yàlla ñoom lay jagleel wax ji may wax di ma téléphoné wala di ma yónnee message xam leen ne itali lii la wax waaw te leneen nag te ñun ñuy liggéey nag di wax ci mbir mi wax dëgg yàlla. mënuñ koo teggi itali loi bu mu wax képp koo xam ne da nga bëgg sa jàmm yaram euh, euh, di wax da ngay wax loo xam ne loolu loi bi wax waaye doo fi inventel wala wax loo xam ne dala neex surtout nag jëm di ma ci téléphoné man nee naa leen rajo defaral suñu bopp lépp loo xam ne dama ko xam ci loi bi ceytu ko dinaa ñëw tekki ko ci wolof ba noppi faram waaye nag sama liggéey foofu la yem. xanaa rek may <laughs> artu nit ñi euh, nañ bàyyi di ma oo naan ma euh, dañuy ut contrat wax dëgg yàlla man Baye Diouf euh, su ma yeboo benn yoon laa mos teg suma tànk ci tool yi fii ci itali muy daaw ba ma demee seeti waa Casa Sankara foofu ca Foggia ca San Severo maa ngi leen di nuyu waaye nag yàlla def na xawmante xamante wu ak benn berom tool nañ bàyyi tamit mbokk yi di ma oo di ma wax mbirum passeport mbirum passeport nag wax dëgg yàlla dafa nekk lu délicat li ci délicat mooy business ya ca nekk eh, ñëpp xam nañ ko muy Sénégal ak ca bitim réew loolu tax na man bàyyi Diouf du ma dugg ci mbirum passeport du ci wax duma ci laxar ci kenn sama passeport six mois ci ginnaaw ba mu jeexee dama jël rendez-vous dem rang comme ñëpp ba sama tour jotee ma dem fay tembre ba ba noppi dem euh, teg loxo ñu ba mu paree ma dem jëli ko waaye nag euh, di ma oo naan ma dañoo bugg nga laxar ci ñu pour ñu am passeport wala nga boole nga boole ñeeg euh, ku fa nekk pour mu dimbale ñu wax dëgg yàlla loolu nekkul taxawaay boo xam ne dinaa ko taamu. Euh, di leen wax ne rek métit naa ko nag suñ xale yi fi nekk am problème passeport parce que wax naa ci ci euh, rajo defaral suñu bopp bind naa jox autorité sénégalaise démb euh, biñ ma invité ci DTV wax dëgg yàlla joytu naa ko def na ci ay xalaat yu ma ci wax di ñaan gouvernement Sénégal ñu jël seeni matuwaay pour dimbale xale yooyu mbokk yi xanaa rek ci mbirum consulat bi ak ci mbirum passeport yi xam naa ne dinaa ci ñëw ci beneen émission pour indi leen ay leeral mbokk yi ñu ngi jéggalu wax dëgg yàlla mbir mi xaw tey émission bi xaw na gudd xam naa ne waxtu dog jot na dañuy dem dog ba ba ci kanam ñu ñëw dellusiwaat indiwaat yeneen thèmes yoo xam ne dañ koy faram-fàcce mbokk yi bàyyi Diouf depuis Genova mu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm kon à tout bon ndogu jërëjëf.